yallahu bil mustafa sindidi yallahu wa bi khalili ibrahima yallahu ak Touba TV ak Touba TV ngir ngeen mën a jot sunu ay vidéo entre réel di abonné tey seen vidéo bi Touba TV di ànd ak Kër Bamba Déco Kër Bamba Imo ASS mbokk yi soldaaru Serigne Touba bi taxawu Sénégal yi rek moo ko tax a jóg moo tax mu andil leen kër Bamba Déco di dox ci lépp lu jëm ci événementiel nga soxla tente muy bâche wala nga soxla chaise ay décor yu taaru te am solo ay tapis rouge yu taaru lool mbokk yi kër Bamba imoo di dox ci lépp lu jëm ci suuf fii ci Sénégal moo xam nga bëgg kër wala teere nga bëgg appartement jokkool ak Kër Bamba Imo ASS di ndox ci lépp lu jëm ci gardenage fii ci Sénégal nga am entreprise wala agent bëgg ko la ko gardeel jokkool ak ASS soldaaru Serigne Touba bii. taxawu Senegal yi rek moo ko tax a jóg yi jokkoo ak mom ci numéro bii ngeen di jàkkarool ci image bi 77 339 88 55 77 339 88 55 ak Touba Mbella TV. si ñaari point rek wala ñett muy Cheikh Omar mi wax wax ji nan lañ gisee waxam ji ak ñi nga xam ne ñoo ñoo yor combat bi ñi nga xam ne ñoo jóg jël combat bi nga xamante ni combat bi ni dañ dañuy xeex dañuy aar ndoneeful mag ñi ñooñu ak Cheikh Omar Diagne ak it kaddu Cheikh Omar Diagne bu fekkee ni kaddu Cheikh Omar Diagne yi yàgg na wala yàggut tay la wala du tay ndax kaddu yi am na njariñ loolu lañ war a xool ndax tey jii Cheikh Omar Diagne bu fekkee ni toog na mu yëkkati ay kaddu daan ni juma jii nii am na signe formation mais na wax ni juma jii nga xamante ni am na signe formation boo dee dugg si buntu penko bi am na benn làmp bu ko tiim làmp booba signe franc-maçon la gars yi dem wékki def fa beneen ni ko jaa jëf Cheikh Omar Diagne hmm? mu daan ni maam borom Touba ak maam El Hadj Malick maam Ibrahima Niass de gis naa bu dee Serigne Touba yër naa jawartu mais gis naa si loo xamante ni wax dëgg yàlla lu ma jaaxal la maa ngi si woo borom xam-xam yi ñu indil ma ñu laabiré si boroom xam-xam yi dinañ ñëw. laabiré waaw dama ne da ko war a tudd. non non dama koy wax dama ni lim wax eh, wala nah, exemple voilà pour wala mu waroon a waxee xam nga li nga nekk si réew mi tey jii mu jukki benn xasida ni gis naa si loo xamante jaaxal na ma si mbindum sëñ Touba mi su boobaa ñi nga xam ne ñoo fi Touba dinañoo débattre ak moom mhm. ñu débattre ni ko Cheikh Omar lii mun ne noo lii nii lii ñu débattre Sénégal yi xam mu jur njariñ mhm. waaye nag boo nee nañ ñëwaat tegaat fi seenu mbind te mënoo see cuqati dara mënoo see tudd dara da nga ne nañ tegaat seenu mbind ñu saytu ko ba xam am na njuumte ndax kenn perfewut loolu jëru ko ndax Cheikh Yirim sek bind na livre Ousmane Sonko mi bind na livre wal Ousmane Sonko nga ne ko ce livre bi par parfait wo moto kañu tek ko ñu xol ba xam awna na wala awul yon Ousmane Sonko ñëw tek nga ne ko li mu ni la li mais ñu xam genn nañ adina te liñ bind lepp dañoo tag yonenti bi ba dem bu fekke amna na su jaaxal wal ak njabootam ngeen ñëw ngeen débaatar buñ dawe nak ñom ñep buñ ñimuta débaatar nga taxaw nga li di señ beeku bind waaye anduma ci kenn du la ci wax dara bu dee mbirum sama yi nonu bu dee mbirum Assane de jëru ko si penc mi kooku wàllu yàlla la woon ñoom si Baay Ñas yi lañ daan jógee di ko seeti na àddina kon jëru nga koy tudd si yii te ji bu fekkee ne fal nañ la li nga war def discours bi nga war a def boo ñëwee xoolal jàngkat yi booy jang jang kenn daaw leen fay président Diomaye fay na leen man xam naa ay patriotes yoo xam ne samay xarit lañ dañ may sax seen bu dem dimanche samedi ak dimanche di bay dañuy dem bay ñoom ñëpp mais nga leeral lan moo Sénégal yi dem songu mbay mi. engrais bi nga wax ci gouvernement bi fi ñu fekk Sénégal ak fañ ko bëgg a yóbbu maam li mu war a mën a wax dafa bari te bàyyi di wax ci personne ndax moom wax ci personne jigu ko ndax bu dee wax ci personne daanaka da ciy def njuumte lu baree baree bari moo koy indiloon dugg ci kaso bi bii jàll ndax ki mu tuumaaloon bi mu demee indiwut ay preuve moo tax mu dem kaso kon loolu bu ko Cheikh Omar Diagne moytoo mën naa continuer def ay discours am te kenn du ko mere ndax ku mën a wax la te ku xam li muy wax la mais tooñ yi moo bari ci ay waxam na bàyyi tooñ bu dee ñi nga xamante ni ñoo opté combat bi Cheikh Cheikh euh, Cheikh Omar Diagne bi mu waxee wax ji mais Cheikh Baara Ndiaye bi muy xeex moom Cheikh Baara Ndiaye xeex na ba 14 18 guerre 14 18 la indi Cheikh Omar ci nguuru Macky waaw kenn fekk ko ci. ñoom ñii nga xamante ñoo copte combat lu ñu doon wax ñoomu neen la de suñu yoon nekku si yal na yàlla xeeb doole yal na seytaane xeeb doole te boobu nga fàttalil ni. sëñ la woon. waaw ah. Seydi Hadji Malick si seen maam la woon. waaw ci jamonoy Macky Sall. waaw ñu tuuse. seen maam te waxuñu kay ñu ni lii bii wax ji booba la woon. ñu ni yàlla na seytaane xeeb dolli bàyyi koog seex Baar ak Cheikh Omar ñu ni ñoomu neen la. ba nga xamante ni ñii nga xamante ni ñoo taxawal aar ndone fu mag ñi am na ñeneen ñu ko taxawaloon aar ndone fu mag ñi. mooy Cheikh ay AIS. kookaat sax am na ñeneen ñu génnaatoon taxawalaat. Mm-hmm. mooy ñi toogoon ak sama baay Ahmed Khalifa Niass ba mu wax naan ni mag ñi romb nañ leen ba jàll ñooñu yàggut ñooñaat gis nga ko léegi doonal moo ah. laa ci xam léegi nag chaque événement dañuy taxawal na ne fa mag ñi maam ku wax dara ñu am ñu taxawal na ne fa mag waaw ndax ndana fa mag ñii man xañ naa yàgg na mais xamuma ko woon man ndana fa mag bu ma toogee léegi ñi ma xam si ñu taxawal ndana fa mag ñi kenn mun laa wax nu mu toll mais léegi nag lii problème bi mooy li tax am na ñoo xamante ni metti na leen ay murit saadeex li Cheikh Omar Diagne wax metti mais dafa am loo xamante ni moo tax ñoom ñu liggéeyloo seen xel ni waaw Cheikh Omar est-ce que lii wax war naa egg fii ndax tey jii ñooñu bi ñu gisee ni Cheikh Omar wax na lu mu war a wax mais dañoo war a bind ab leetar dem jébbal ko président wala ñu jébbal ko premier ministre wala ministre de l'intérieur ni ko ah Cheikh Omar de lii la wax te lii de mën naa yee fitna te nga leen a wax ak moom ni tekk diglu premier ministre de l'intérieur ba mu tontu leen. te lii lépp li ko waral mooy leetar boo xamante ni Cheikh Cheikh Omar Diagne def na ko wax nañ ca tontu nañ jeex na ñu daal dem indiwaat yeneen nag daal di koy jël teg ko ci taabal ji pour politique ko. ndax ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo opté combat bi gis noonu amul kenn ku si bokk Pastef ñëpp waa APR lañ ñi si ëpp waa APR lañ joroon ay post APR sëriñ Mudu Mbàkke mii nga xamante ni Bara Doli maa ngi koy siyaare muy sunub sëriñ di sunub xarit dañuy déggante moom moo àndoon ak mbay peex defoon soog si campagne Macky Sall ba ñoo defoon soog bi mu leen Macky Sall joxaat ay oto mu ànd ak président Macky di ko jàppale Touba bu président Macky Sall daanu nii. te boobaat ñu ngi ŋàññi sëñ Touba. di hmm. damm ay ormaam. waaw boobu waxut. moom moo jiite kuréel gii nii. ne war na nekk Masal wala na dem Masaliku doxu ñaxtu. mais daal dafa bu fekkee da ngaa taq si politique boo demee Tiwaawoon am na ci ñoo xamante ni tey jii waxoon nañ gars yi jàppoon nañu ni eh, ñoo doon wax gëmmal dóor mais ñoo xoole foofaat. kon tey jii ñooñu bu fekkee ne mbir mel ni am na da ngay xool ñoo xamante ni seen yoon nekku si nga tax nga jox leen ndax ku demee ni Baye Momar Diagne dëkk Louga mais da see wax yemale Cheikh Omar Diagne mais gars yi dañoo d'accord ak moom. sëñ Omar moom lu mu wax. Hmm? maanaam ku mu attaqué. Ah? ko koy nangul dafa yemale Cheikh Omar Diagne xamal na ko mag ñi seen mbind mi bind nañ ko ba dem génn si. waaw sëñ Omar Diagne moom macha allah. waaw ah, yemale Cheikh Omar Diagne dañ ko nangu dañoo xam ne kii wax day wax dëgg te politique wut fenn. Hmm. am na kilifa yu génn def si ay discours yoo xamante ni neex a dégg lañ te politique wuñ si kon nag ñi nga xamante ñoo koy politiquer nañ bàyyi politique bi teg ko ne mbirum Serigne Touba ak mbirum mag ñi kenn du ko politiquer ñi tooñ mag ñett nañu bàyyi mag ñi ñuy tooñ duñ seen morom lii daal laa si xalaat maanaam wax nga lu neex nag mm-hmm. te li nga li mu fàttali dafa am solo muy ñii jóg tey mm-hmm. ci jamonoy Macky Sall xotti nañ seen xormay maam mm-hmm. waaye waxuñu dañoo mel nekkuñu fi man mii xeexal naa seen maam bañ porté ma plainte waaw kenn waxul. Mhm. te ñi ma porté plainte ci seen maanaam seen sëti maam lañ. waaw waaw ñu ne ci yàlla kenn waxul. Mhm. léegi tey bi nguur gi ñëwee. Mhm. ñu ni daal nañ jëli ji wax yañ waxoon te nguuru Macky Sall. lijjanti koog moom. waaw waaw merci beaucoup. jërëjëf Assane. sëñ Momar Diagne ca Louga jërëjëf euh, yow moom yàgg ngaa xeexal mag ñi vraiment. xaaroo nguur gu daanook nguur gu fi nekk nguur gu wéy. yàlla na yàlla barkeel alaaji. Cheikh Omar del li ko yóbbee lii ba naroon dox dox ñaxtu am na ni euh, dañoo laal seenu Mhm. ba tax ñu jógoon waaye dafa mel ni ndaje ma dañ koo tere. waaw macha allah xam nga boo dégloo Assane mu wax rek da ngay xam ni diggante bi coow li jógee. Mhm. ak léegi même ay gis-gisam soppeeku na. Mhm. waaw ak ah, gis-gis bi soppeeku na. daa rax mbir mi daa rax. lu ci tàmbalee rax moo tax mu daa dee xaw a soppi. na nga xam ne noonu la doon waxee parce que xam na ni moo gaa yu bari bokkatuñ ci gis-gis mbirum Cheikh Oumar Diagne nag euh, dañ koy régler xel. Hmm. te bañ ko régler xool. Hmm. mais boo seetee ñenn ñi dañuy utiliser ngëm-ngëmu nit ñi pour xeexee ko seen njariñu bopp. parce que li waral coow li mooy li ngeen fi wax sànq. Hmm. que wax ji du tey. li ci li ci ëpp liñ jëli jiwaat donte nag Cheikh Oumar Diagne génnaat na defaat beneen sortie hmm. mais avant sortie boobu it ñu ngi doon génnewaat yeneen mbir yi nga xam ni moo waral coow li hmm. wax joo xamante ni ni nga ko waxee noonu la demee Cheikh Bara Ndiaye hmm. moo fi doon taxaw te doonte mook seex Oumar ñoo jege woon nañ Pastef Cheikh Bara nga ca Pastef mu nekk Pastef bi ñuy combat la nga ca wax loolu la gaa yi doon wax maanaam kenn dugg ci maanaam mbir yi du Euh, mag ñi mhm. déedéet léegi nag journaliste bu mer ñàkk a fay impôt da dugg mhm. fekk ay problème mu impôt la am mhm. mais day jël problème mu impôt bi dugal ko ci Cheikh Omar mbirum murit wala mbirum tiijaan mbirum tarix naan kii nag bu yaa ngi dégg loolu mooy li nga xamante ni bi mooy jafe-jafe yi am politicien boo xam ne bi foqar ci nañ ay postam moom it mu ñëw nuuru ci di wax ni mbirum kii loolu nag bu la boo gisee loolu dafa fekk ne politiciens yi dañoo amut lu ñu man dama gis dama ci gisaat son yi bu uh-huh. beneen mbir moo xamante ne bi politiciens yi maanaam ak xamuñu fu ñu war a amuñu fu ñu war a dóor ci liggéey bi nga xam ne moom la état bi di liggéey parce que bu ñu amoon liggéey bu ñu hmm. bu ñu war a liggéey bu ñu kii bu bu état bi di liggéey du ñu woon wàll ci mbir moomu journaliste yi bëgg a diaboliser tamit bi ñu xoolee ba xool mënuñu hmm. c'est parce que man damay tuddee presse kii bi mm, mm, mbëri démb quoi maanaam presse démb lañ maanaam internet booy internet yi dañ leen a mhm. dañ leen di xaw a rey mhm. comprendre nga ci jamono ji nga xamante ni bi moom lañ nekk nii comprend nga mhm. léegi ñoom it dañu bëgg a ci yëf yi maanaam ñi bëgg a ci yëf yi ñoo bari te ñooñu buñ ci duggee noonu mbir mi Euh, dootut amati day day day day am lu muy yàq. Mhm. parce que dafa am ñoo xamante ni bi tey parce que tey boo déggee ay Assane dellu na pas en arrière xoolaat gars yi ne eh gars yi gars yi. ñii nag maanaam bi lu tax démb waxuñu woon. bi coow li bare rek moom dafa taxaw. dafa taxaw. waaw maanaam te moom moo leen ci jiite woon. waaw Assane ci jiite woon ñëpp APR lañ bokk. waaw yaa ngi dégg ngeen déggante man dama encouragé ñëpp APR lañ bokk. waaw yaa dégg Assane ba mu ciy wax ay gëm-gëm boppam la demee woon. Mhm. bi mu demee nag am commencé di ko bëgg a récupérer. waaw moo tax mu ne naa teeyaat ci parce que Assane lii mu gëm ni moom lii mu gëm depuis GCB. waaw gëm-gëm bii la am Cheikh Omar moom la gëm moom la gëm ci Cheikh Omar. waaw moom ku mën a wax moom day wax ne Assane moom. Euh, bokk Cheikh Omar boobu. bokkuñu gis-gis bokkuñu gis-gis bokkuñu lu ñu loolu. waaw maanaam mais boo xoolee. li tax mu deltu ginnaaw gars yi ko wàll si fekk si ko xam na ni ñii sëñ bi ñoru leen. Mhm. waaw du suñu sëriñ si ñoo leen ñor. yaa ngi dégg donc nag loolu nag moo moo moo baaxut. Mhm. loolu moo baaxut. Hmm. waaw parce que bu fekkoon ne tey ñii ñëpp ba Cheikh Baara doon wax jógoon nañ. Ah, waaw kon mu booba defe naa ni jamono jooju. Mhm. la mars waroon a am. Mhm. jamono jooju loolu lépp waroon a am. mais dañoo seetaan seex Baara ak combat ba rek. wallaay wallaay comprendre kon Cheikh Baara moo leen sax gën a parce que Cheikh Baara nan moom bokk naag waa ji. gis-gis ci wàllu politique yenn yi. jegante nañ ñu ñu àndal. te terewut bi mu xamante ne waa ji yëg na ni laal na pas-pasam. daf ne naa jóg affronté ko. Hmm. comprendre nga hmm. wax ak moom lam ca ba tey am na ñoo xam ne bi ñuy tàmbali xeex bi sax yooyu lañ indiwaat. yooyu lañ doon indi rek. Hmm. yooyu rek yooyu lañ indiwaat. di ko partagé añ sax di ko yónnee si kasa bi moom Cheikh Omar. waaw te bu laalee ngëm-ngëmam mu xeex ak moom. waaw te bu laalee ngëm-ngëmam mu mu xeex ak moom. xam nga loolu. il faut que nit ñi delloo si xel yi. delloo si xalaat yi bañ. dem ak xol mhm. te alaaji mom dafa tuddu ñoo xamni sax bo leen déggon ci mbir mi tey boo déggoon maam Cheikh mbaka ayes genn nga gis Cheikh Baye Niass ah, daal di génn mhm. Hadj Malick Mbaye boole ñom genn ah, nga ni ñi de yag na ñoo combattre ci xexu mag ñi non ñi dañ koy xar ci mais déggoo ci ñooñu maanaam ñi nga ci dégg ñi moy ñi nga xamni ñi ngi won ci wetu waji wala moog waji makki mi fi jógee ñoo bokk gis-gis man mo tax damay toba ci jàng damay wax ne bu xam nga parrainage da nga naan bon lan mo leen active lan mo leen yëngal la mhm. lan mo leen yëngal ba tax ñu daal di jóg. ba xam affaire yi toll ak est-ce que dëgg dëgg. Hmm. amut leneen lu ne ci suuf. waaw dëgg dëgg. waaw yoo xamante ni moo tax jóg parce que parce que en tout cas doy na waar hmm. te nag bon nañ dem ak ci yëf yi xel. vraiment te bañ cee dem ak xol quoi comprendre. waaw nañ ci dem ak xel te bañ cee dem ak xol. macha allah.